dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér te leen ngir dara bañ leen raw wàllu xibaar nag addu ci conseil yi ñu jagleel wàllum njàng meek njàngale mi Ousmane Sonko nag mi ngi daal di lancé liggéey yi premier ministre Ousmane Sonko nag ubbi na niki samedi bi ca Diamniadio euh, benn ay liggéey yoo xamante ne dañ koy jagle lépp lu jëm ci wàccaayu examen yeeg lu nu mel ci secteur éducation ak lu jëm ci formation atum 2024 at 2023 2024 ci noonu sax nag élimaane jëwriñ yi Ousmane Sonko ànd ceeg ministre de l' éducation nationale ak ñu bëri ci membre du gouvernement bi jot nañu amal nag seen spécial ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi spécial ci yenn domaine ak partenaire technique ak financier yi ci secteur wàllum njàng meek njàngal mi jot nañ ci nag waxtaanee ubbite boobee nga xamante ne dafay àddu ci anam bi ñu amalee nag lii di examen yi ginnaaw ba ñu ubbee nag ndaje boobee jëwriñ bi ñu dénk wàllum éducation de Moustapha Guirassy jot na fàttali rek ni nouvelle autorité yi Sénégal yi jot nañu jox nag solo bu takku nag lii di njàng njàngale bi ngir rek def seen kéem kàttan jëlee fii def ak jafe-jafe ñu ñu nemmeeku ci njàng mi wax na tamit ne ambition la gouvernement bi am ngir gën a évoluer système éducatif fii ci Sénégal jaarale ko ci société boo xamante ni dafay éducatif ba noppi daal di inclusive d'ici deux mille trente cinq ba tey rek nag ñu ne euh, dañuy def suñu def nañ suñu évaluation jëm rek ci système éducatif bi ak société éducative yi loolu sax nag dafay wane rek d'ici deux mille cinq nag dinañ def képp kàttan ngir rek nag njàng meeg ñoom ubbite boobee sax nag dafa bokk ci la nga xamante ne rek mooy conseil ministériel bi ñu doon amal ca jam ñaajo ca bërëb bu ministère ministère bu ko denk lu toll ci fanweeri kilomètre fii ci Dakaaru future société yi nag nee nañ dinañ am nañ ambition ngir former ay ndaw yoo xamante ni mën a am liggéey liggéey nekk ay citoyen sénégalais yu baax ànd ceeg suñu valeur africaine waaye tamit suñu aada ak cosaan fas yéene rek euh, préparer leen ñu mën a affronter jafe-jafe bu ñu mën a jànkoonteel ci àdduna bi lu jëm ci wàllum science ak technologie waaye itam lu jëm ci wàllum numérique ak intelligence artificielle bi nga xamante ne jamono ji nemmeeku nañ ko loolee di ay kàddu euh, jëwriñ bu ñu dénk wàllum éducation di Moustapha Guirassy ginnaaw nag conseil interministériel bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ca jam ñaajo